asalaamaaleykum alaikum yi allo Dakar TV man Dallou Dakar nous naa leen ci fi ma tase yéene kaay ay ñu def la tribune la tribune ñu def euh, Gambie enquête CRP comment Jammeh a détourné 500 milliards la ilaha illallah yaa Jammeh xanaa dafa raxas Gambi, fobeere ko su ma jógee ci la tribune de daal dem ci li nga xamante ni enquête enquête ñu def Kenkena 2019 2024 les hommes du Macky Sall ñu daal def président Macky Sall ma ngi relax waaw waaw boobu nga xam ne ci biir xoolal li nga xam ne enquête yéene kaay su ma jógee ci enquête yéene kaay damay dem ci Dakar Times

fonce sur Papis Saou, Diouf Enya. Je vais vous les échos les échos les braqueurs sont bel et bien des militaires Ouais les militaire sénégalais. militaire xam dañuy Les si kan Vous les di petit li militaires militaires. de militaire un militaire les échos vous les échos vous avez direct info y a falsification de l'histoire la vérité rétablie par le savant Cheikh Anta Diop. mbokk Sénégal ku xam président Macky Sall xam ni ku bëgg Touba la ku xam son excellence xam ni ku bëgg Serigne Saliou la ak waa këram waa jii nga xam ni moo tudd minicar minicar bu Serigne Saliou nee na day jàppale président de la république ci Zahir ak baatin ku Serigne saliw teg loxo nag loolu laal mu dem jërëjëf Serigne Saliou ba altine